يا الله بال tedd bi yàlla yàggalub toogaayam fii ci Touba moom sëriñ Basiiru mii Mbakke aar bii daaw maa ngi maam Cerno ñu ñoo àndoon ñu yëkkati woon fi ay kàddu kon moo tax ñu profité yëkkatiwaat ay kàddu maam Cerno bu ñu ñëwee léegi duggut fii ci Touba amul kenn koo xam ne des na ca ministère ba ñu nekk directeur yi ñëw nañ colonel yi ñëw nañ commandant yi ñëw nañ

kenn appelé ci dëkk bi loolu Mbàkke doy na sëkk dénk nag koo wóolu buñ la wóoloo lan lay dénk waaye buñ la wóolu kenn doo dénk dara Mbàkke Sëriñ Basiiru la ma waxoon daaw moom laay wax yow Sëriñ Tubaa yow Sëriñ Tubaa nga fu Tubaa yem loo fa nga yem lu mu def loo moom ngay def yaay bëtam yaay léppam kon Mbàkke noo ngi ñaan ci doole Sëriñ Tubaa yàlla yokku yàlla yokk sa xéewal wax ni daal man maanaam li tax ma yëkk sama kàddu kii bu ñu doon tëbaskeeb géel fu ma séen damay daw moo tax fi mu ne balaa wax ma waxal ko yëkkatil ko kon maam Thierno la nga indi woon daaw yaakaar naa ne da nga koo yokk waaye wàññiwu waaye fii nga dëkk nag ci Touba ndax waxoon nga ko nee na lu may def lépp Touba gii laa am amu lu Serigne Touba kon maam Thierno dañ lay jox kàddu gi di ñaan nag ci doole Serigne Touba Xaadim Rasul ndomb ak tànk yàlla na yokk ci doole Serigne Touba bi nga ñëw bàyyi woo daas bàyyi woo deese directeur yëpp ñëw nañ noonu laa mën a wax directeur yëpp ñëw nañ ànd ak kon monsieur le ministre ñu jox la kàddu gi nga ubbi. juddoo ma ko may waaye na mu ko matee loolu am solo ndax lu ko ko may mooy féete ñu nekkoon sëñ Tuubaa fu leen war a féete doonub dong moo ko ko may. cant kooku nag ñu sant euh, sëñ Muntaxa képp ku di murit bëgg sëñ Tuubaa gëm ko war na la koo sant ndax yow itam ci loolu rek nga nekk. li sa maam yéene yoon ci yoonam bi kenn gën lu ko xam te ci loolu rek ngaw ñëw bi tey nag ñaare ñëw république moo ñëw ndax ministre de la république te loolu suñu borom ko bëgg dogal ko te république mooy nit ñi teg la fi nga nekkal fi nit ñi te xew-xewu tool yi màggal Tuuba lu toll ci 48 heures ñaari wa ñaari fan ñetti junni ñetti millions sénégalais wala lu ko daje fa lépp la fa war pour nekkin wa am na mu amee état la war loolu mooy responsabilité état ñun wàllu environnement nag set ak setal ak ñoo ak sellal loolu mënuñu te lépp luy jëm ci sëñ tubaa xam na nda ci sëñ tubaa diggee ca këcc góorgóorlu moo tax lépp lu jëm ci tubaab bëgg nu caa gën a néew la bëgg nu caa mujj bëgg nañ ci ëpple bëgg caa njëkkale ëppale léegi nag yombul ndax tubaab moom loo indi fekk fi lu ko fi lu dina ko fekk waaye njëkk bi moom yaakaar naa ne ren am na te képp kuy seetal kuy teeru ay gan daa am noo leen di teeroo mooy seetal dëkk ba mu rafet te loolu moo ñu indi ñaareel bi mooy doon toon taalibe Sëñ Tuubaa wér nangu ko gëm ko doyloo ko xam lu bari ci moom te li xam ci moom wax naa la ko léegi ñett ci ñett laa ko jànge

loolee mu dikk fonk moo tax at mu jot lu mu man may ñaan yàlla bu dee man la moom ba tax na ren li may indiwoon daaw yokku naa ko yokk naa ci yokk gi mooy ab lim bu dee bariwaat yi léegi defe naa yàgg na ci ñaar téeméer bu dee ci poubelle yi yegg na ci juróomi téeméer ndax jaaj mi am na lu mu ci def poubelle yi sax dañ ni mbalit lañ koy def waaye dëkk bi léegi daf naa am na ñu koy def ay ndaa waaw indi nañu ay radow li war a ñëw lépp laal pour ñëwal dëkk bi indi nañ ko sunu yéene nag suñu jëf mënu koo matal waaye yéene ji moom mat na sëkk te li ci li ci yokk mooy li ma la doon expliqué léegi ci jaañ mi ndax ñoom dañoo nekk ci liggéey boo xam si njëriñul réew mi ñëpp xam nañ place bi li muy ci réew mi place boobu ñoom lañuy ñuy jëndaat ñun di ci defaraat ay jëmtukaay loolu ñu defaraat indi nañ ci lu war mat juróomi téeméer ñeenti téeméeri poubelle ay ay ay ay sata la ay raxasukaay lépp loo am si itam mooy jëm ci wàllu set bi loolu lépp nag sëñ bi duñ tax a bàq ndax si tubaab moom mën nu ko liggéey lépp luñ ko liggéeyee dañuy seet leen ci di ko war rek ba tax na noo ngi leen di gën a doyloo suñu bopp di ñaan ngeen ñaanal ki ni fi yóbbu borom bàyyi ko fi ba li mu ci réew mi def ko mooy président Macky Sall moom suñu borom teg te ñëpp xam nañ li mu ci réew mi ñoom ñaan ñun ñëpp suñu borom defal ko loolu noo ngi leen ñaanal ngeen ñaanal ñun tam ba lim lu dénk bàcc bañ bàcc bañ ca fekk bañ ci ngeen ñaanal lu tam yàlla kat loo xiir ci doon doog ab sëñ ndax loolu ci lépp nag ndax boo xasee ba doon rek loo jublu da nga ko song ndax da nga ko song taalibe ak mat ak maan yow nag dama lay beral sama sant bopp. Mm-hmm. loolu xam nga lu tax lu ma wax ci rek xam nga ci man lu ko sama xel ak sama xol te loolu di ko def xam nga ko du luy wax ci booloo waaye maa ngi lay dénk sama bopp la doyloo sama bopp di la ñaanloo nga ñaanal itam ñii ma ànd ak di liggéey nga xam ni seenu baax ak seenu nag ak bëgg lu baax donc moo tax ñu topp sama sama ginnaaw defalu ma leen lu ko jar maa ngi ñaan nga ñaanal leen ba liggéey bi ci ànd lépp suñu borom defal lu ko te tubaab ma ci tàmbalee wax bu ñu ma téyewul du ma mën a noppi waaye yaakaar naa ni ñoo ngi lay ñoo ngi lay itam jéggalu ci wax kàddu yu guddi yi waaye xam nga suñu xol xam nga suñu xel lu ñu waxul rek dañ ko fàtte waaye li yéen ëpp na loolu fop ñoo ngi sant ñëpp gërëm ñëpp mu wa rahmatullah barakaatu ñu ngi delloo am nuyu bu baax ministre environnement Mame Thierno ak mboolam délégation bi mu àndal yëpp dina jotee nuyoo ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi toogee jataayu Serigne Touba. te nga jaar ci moom léegi mu seereel la ci kàddu boppam ak làmmiñam li nga xam ne wax na la ko muy lu mu xam ci dund ko yow kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci ni nga ko defe woon daaw nga defewaat ko ren jii ba noppi boole ci yokk ko muy jëf joo xam ne danga koy def ngir jàppale ko ñi bali dëkk bi ñu ko rafetlu bu baax di la sant ci turu sëriñ bi la ñaanal suñu boroom dimbale la kàttan la ba mission bi ni nga ko yéenee yàlla mottale ko noonu di di la sant bu baax itam ci nu nga ko waxee rek ndax eh, ginnaaw cëru ministère bi nga xam ne moo la fi yëkkati taalib gi da jiitu te ñoo xam ñor gi la ñor ndax yàlla def na eh, bi nga xamee ne. président bëgg na laa tànn ngir dugale ci gouvernement bi la nga njëkkee def mooy tàggu sëriñ bi laaj loolu histoire la ndax mu nekk histoire ca bu njëkk euh, nañ ci ay nit. lan dégloo ngir yàlla dàq nañ ay nit ci lu mel noonu euh, ca jamono yu njëkkee kuñ war far ministre. laaj ko ba xam ndax bu la Serigne Touba joxe ndigal ñun nguur gi ñu joxe ndigal nooy def mu ne boobaa ndigalu Serigne Touba lay diglu ñu dàq ko kon kon loolu tontul nga Serigne Touba li Serigne wax barki dem tontul nga Serigne Touba ndax dangaa dem ci Cheikh Sidi Moukhtar laaj ko ndigal te loolu itam ma doonoon ci dara xam ko ndax boobu it la nga ma wax mooy sëriñ bi di fi mu toll. ak cër bi ma jox ñor na ma ñor boo xam ne lii li muy baax baax ndax liggéeyal sam réew la waaye léegi ma ko gën sëriñ bi ci boppam nag moo la jox ndigal waxaat ma ko ne la jox naa ndigal nga dem nga nga dem wuy ci kon li nga def lépp ndigal la kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di gis itam positif bi nga àndi war ak moom ginnaaw bi itam li nga motulee kóllëre gi sa digg moom loolu doy na sëkk te sëriñ Muntaxa ku xam diggam si Cheikh Sidi Muxtaar yéen ji sëriñ bi amoon ci moom ak moom itam yéen ji am ci sëriñ bi bu demee noonu rek loolu lu rafet la kon moom lépp loo xam ne fekkoon na sëriñ bi suuxat ko te loolu lu may dund ak moom la ba ci ka ci gën a suufe bu sañoon loolu day yokk bu baax ndax xam na yéen ji sëriñ bi amoon ci moom ak taxaw bi mu ko taxawoon kon nag ñu ngi lay sant bu baax ci mboolem jëf yi nga xam ne jëf nga ko. dañ ñaanal suñu borom dimbali rek kàttanal la ba mboolem yaakaar ji nga xam ne am na ko ci yàlla dimbali la ba yaakaar ji lépp suñ suñu borom mottali ko nu kaw si njort di nuyu Serigne Cheikh mi nga xam ne itam moom nga àndal liggéey bi ci wàllu mbali bi nga xam ne ni ma koy fàttalee rek bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Lamine Bara yëkkatiwoon na liggéey bi teg ko ci sama loxo ma dem ci mboolem njabootu Serigne Touba yi ku ci ne yëkkati ndaw jox ma euh, sëriñ Mountakha dama boole Moustapha Moussa ba noppi boobu dafa dama mbale mi moo ko defoon ànd ko sëñ Cheikh jëmb Fall loolu nag dama bëgg moom mm, a xew rek loolu ba loolu li ci des nag yaay seet nu mu gën a jube ci yow nga def ko lañ ko àndee ba di ko ci sant kon ci pëstéef ba taxawaayam di sant ñi ko jàppale ñëpp comme ni ñu ko defee di ci gërëm it Abdou Lahad Ka ndax moom itam bi nga xamee ne mbala maa ngi tàmbali Serigne Cheikh daa ñëw ci man euh, wax ma ko wax ma li ñu soxla ci gaasuwaal ma wax ko ko ma wax ko Abdou Ka mu def ko noonu la ko defale woon ak daaw daaw jéeg waaye ren ji itam lim ba mu ko sàkkoon ci moom jox na ko ko bañ demee ba ci biir mu manqué waat ndax xam ngeen nit ñi dañoo gën a bari mbali mi gën a bari ba mu ko laajaatee it joxaat na ko ba tey jii itam noonu kon loolu lépp tam boo ko defee siñ bi la ko defal boppam la nag ndax xam ne siñ bi ko te teg waaye kon ñu ngi koy seet di ko sant bu baax di sant mboolem ñi ñëpp la suñu borom ci barke Sëriñ màgget gii di ci Sëriñ Tuubaa daali nga ci jëf yàlla na ko nangul te ku bu la ko nangul ne li nga sàkku lépp ñu ci biir asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yàgg fi loolu te sëriñ bi ñoo ngi lay ñaanal nga yàgg fi loolu te